saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa revanche ba war a dox ci diggante Gris Bordeaux ak Balla Gaye numéro 2 bi le la journal ba xam ne mooy Balla Gaye 2 ay risque yu rëy la nar a daw digganteem ak Gris Bordeaux moom Balla Gaye dafa fas yéene risqué combat la waral sunu làmb yëkkati kàddu yi ni mel nag mooy Fass ñoo bëggu tarate bi le occasion ni ñu def ba ñàkk ci kanamu Balla Gaye 2 dootuñu ko tóllanti combat bu njëkk ba Balla Gaye ak Gris Bordeaux gannaaw combat bu njëkk ba nag moo demee noonu asama revanche ba bile revanche bu Balla Gaye 2 jàppee ne day nooy day nax boppam waa seen revanche bi faaw ñu toj ci kaani paccal ci limon booy ñaa ma ko doon xaar ngir bëreeg moom te ñu proposé woon ko 55 millions ak lu làmb génn nañ ba fistuser comportement jëf ja booy ñaa def ba bëreewut ak Balla Gaye 2 moom la ñenn ci làmb naqarlu ñenn ñi jàpp ne booy ñaa warutoon bañ bile kase ñenn Modou feelu ko ne ko Boy dafa waroon def ay sacrifice jël bile combat keneen feelu ko ne ko staffu Boy jël bile combat li am ba des mooy Boy jëlul bile avance ca Gris la teere ji kan mooy nekk adversaire ginnaaw ba nekk journal beneen laaj ci Tapha ne moom it ginnaaw Gris Bordeaux jàll na Balla Gaye jàll kan mooy nekk adversaire gannaaw moom Tapha bañ na rëg-rëg kan mooy nekk adversaire gannaaw bu Eumeu Sène ak Bombardier jàllee année balance bu gisee avance yi ñaari mbër yi na ko jël ñu ngi doon wax revanche am ak Ama Baldé Ama am na Modou Lo Lac ak Boy Niang 2 kepp a des ci yoonam ka ponkal nekk ci yoonam mu fas yéene koo faxas jàll mooy Tyson 2 François Gomis mi jaaxal gaay la bëgg a jaaxal moom Tyson moo bëgg a def Franc lu ko kenn mësu def aw ak moom fu kenn mës a jaar ak moom bu dee Coen ak double moteur loolee it combat jàng la dafa jóge a a taxaw foo ko Jean Tyson 2 tuq su bënn saañ ba réer lay nekk bile combat amagul benn amateur bu ci ñemee joxe favori Balla Gaye Gris fas yéene nekk la revanche de l'année Bombardier Eumeu Sène di combat de pour Bombardier promoteur yi yemuñu foofu ndax ñu ngay gas ca suuf ñu ngay contacter ngir taxawal yeneen i combat ngeen jëf mbokk yi li moo li gën a fës ci yéene kaay bi ñu leen jox di daje ba ëllëg incha allah